alhamdulilahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi alamiin wa ala aalihi wa saxbihi wa xadiimihi ajmaciin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokki jullit yi ginnaaw bu nu sante sunu borom julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñi ngi leen di nuyu di leen ziyaara ci bis bu tedd bi di leen ndokkeel muy bisub àjjuma di fukki fan ak ñeent ci ndayu koor ci atum junni ak ñeent téeméer ak ñeent fukk ak juróom ñu dellusiwaat di fàttali sunu bopp di leen fàttali ne diiney lislaam ji defal na jigéen teraanga joo xam ne musu koo am lu jiitu lislaam ndax lu jiitu lislaam xeet yu bare bari wala li ëpp ci xeet yi dañoo xeeboon jigéen joxuñ leen benn cër waaye lislaam bi mu ñëwee mu jox leen nag teraanga joo xam ne musuñu ko am sunu boroom subhaanahu wa def jigéen muy koo xam ne moo góor fu góor teg tànkam war na fa mën a teg tànkam lu góor sàkk ci lu baax war na koo sàkku ndax yàlla ku sàkk lu baax te pas-pas lal ko ngay góor ngay jigéen mu fay la ko moo wax ne wa man yaamal min min dakarin aw unsa wa huwa mumin wa huwa mumin fa ulaika yadxuluuna aljannata wala yudlamuuna naqira bu ñu ñëwee ci xadis dañuy fekk nag sayduna muhammad alayhi salaatu wasalaam muy wax ne maa akrama nisaa illa karim wa ma ahaanahunna illa laim nee fekk kuy teral jigéen xamal ne ku baax la waaye foo fekk ku leen di doyadil xamal ne ku bon la jigéen ñi benn mu doon sa wajur wu jigéen te wajur wu jigéen ak xam lu diis la yàlla nee na wa wasaynal insaana bi waalidayhi ihsaana xamalatu ummuhu kurhan wa wadaatuhu kurha nee na dénk naa nit mu fonk ñaari wayjuram te rafetal jëm ci ñoom rawatina wayjuram wu jigéen wu jigéen wi nga xam ne moo ko ëmb ànd ak coono moo ko imbi ànd ak coono moo tax ka ñëwoon ci moom euh, di sàkku ci moom ab dénkaane ne ko su may def teraanga ak lu baax ana ku ci gën a yey mu ne ko sa waajur wu jigéen mu ne ko ak kan mu ne ko sa waajur wu jigéen mu ne ko ak kan mu ne ko sa waajur jigéen door door nag ne ko ak sa waajur wu góor kon bu dee waajur kenn waxaalewu ko bu dee nag soxna itam wax na ne xayrukum xayrukum li ahli waa ana xayrukum li ahli nee na ki gën ci yéen mooy ki gën ci waa këram te man maa gën ci sama waa kër alayhi salaatu wa salaam wax na itam ne xayru mataai dunia almaratu saaliha in nadarta ilayha sarratka wa in xibta anha xafidatka fi nafsiha wa fi malik nee na xéewali àdduna li ci gën mooy soxna su baax soo xam ne soo ko xoolee sab xol sedd waaye soo ko wanee ginnaaw sam xel dal moom la ku baax ki naan wa zawjatan saalihatan tuiinu ala tuqaa wal birri yaa muiinu kon nañu xam ne yéen soxna yi lislaam defal na leen teraanga joo xam ne mosul leen koo am bu dee doom ju jigéen tam yonent bi nee na alayhi salaatu wasalaam maa min muslimin lahu bintaani fa yuxsinu ilayhima maa saxibataahu aw saxibahuma illaa wa adxalataahul jannata nee na ab jullit soo amee ñaari doom yu jigéen nga taxawu leen rafetal jëm ci ñoom yar leen yarub diine ba ñu jag nee na su ëllëgee eh, ñaari doom yu jigéen yooye mën nañ laa tàbbal àjjana kon ndeke sa doom ju jigéen soo ko taxawoo taxawaay bi lislaam santaane ci doom ju jigéen su ëllëgee boo naroon a am ay jafe-jafe mën na la ca génn ndax mooy jàpp ci sa loxo tàbbal la àjj na jigéen lislaam jox na ko àqi buñ ko bëggee wutal borom kër bu mu buggul bu mu sañ naa gàntu ndax am na ku ñëwoon ci ku tedd ko ne ko sama baay dama bëgg wañ sama loxo may ma doomi mbokkam mu ne ko seetal bu la neexee nga ànd ca bu la neexul nga gàntu mu door ne ànd naa ci waaye dama bëggoon nag ñu xam ne jigéen kenn du wañ loxoom di ko tàbbal ci loo xam ne du bëgg-bëggam kon kenn du wañ loxoom jigéen ñi dañoo dañ leen a war a jàngal ndax lislaam loolu la santaane moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi daan jàngale dafa wutaloon soxna yi bis yoo xam ne ñoom ñoo ko moom ñoom lay euh, jàngal ku baax kii itam bi mu fi nekkee dafa wutaloon góor ñi seen kees wutal jigéen ñi seen kees su leen bëggee jàngal day dem ca ñoom di wax ñuy dégg ndax ñoom itam dañ ci am cër xam ngeen imam xaari mi ñëpp xam nga xam ne fu ne dem na fa di saako xam-xam am na ci ay sëriñam ñoo xam ne jigéen lañu kon jigéen yàgg naa am cër ci diiney lislaam kon jigéen sañ naa jàng sañ naa jàngale sun borom nee na wadkurna ma yutla fi buyuti kunna min ayatillahi wal xikma kon jigéen dañ koy jàngal diine waaye su jàngee ba xam na koy jàngale xam ngeen ne jigéen sañ naa daan dooleem te sàmmonteeg charte lislaam mooy buy génn na yiw di dox dox bu yiw di wax wax ju yiw te bu ko yàqal dara ci këram jaabir ibnu abdullahi nee na dafa am waajoo xam ne yaayam ju ndaw dafa amoon tool di ca dem di fa daan dooleem mu tere ko ko nag ne ko jigéen du dem tool jigéen du bay jigéen du daan daan dooleem mu dem kalaame ko ak rasulullahi alayhi salaatu wasalaam sang ba ne ko uxruji fa juddi naxlaki laallaki an tasaddaqi minhu aw tafaali xayra mu ne ko demal sa tool daane sa doole loo ca amee nga di ca sàkk sarax ak di ca def lu baax su xam ngeen ne jigéen yàgg naa taxaw taxawaay bu rafet ci lislaam soxna xadijatu ñépp xam nañu ne moo njëkk a gëm rasulullahi alayhi salaatu wasalaam loolu muy ndam loo xam ne jigéen am na ko te góor mënutu ko dabu soxna asma bintu abi bakrin ba muy gàddaay te nekk ci xun xuntima moo ko fa doon fekk la muy mos moo ko ko doon yëg loola tam aw fit moo koy def pas-pas moo koy def xam ngeen ni minbar bi nga xam ne ci li imaam di yéeg bu xutba jigéen a ko njëkk a xalaat jigéen a ko njëkk defar jox ko hadiya rasulullahi alayhi salaatu wassalaam xam ngeen ni alquran gi alquran ji ba ñu ko dajalee def ko kaamil muy benn kaamil ci àdduna ba ñuy seet kuñ ko dénk ku doy ku wóor jigéen lañu tànn muy soxna xafsatu bintu omar ibnul xataab jox ko ko loola day wane na jigéen fu góor teg tànkam war na faa mën a teg tànkam xam nga ni itam soxna sumayatu waa wejur ammar ibnu yaasir moo njëkk a tuur deretam ci lislaam loola itam ndam la loo xam ne jigéen am na ko te day wane ne fu góor taxaw ngir pas-pas war na faa taxaw ngir pas-pas xam ngeen ne sëriñ bu mag bi ba muy naal jumaa ji euh, te topp bi ay sas taalibe yi di ko dajale la ca jëkk daje ba mu koy dénkaane as soxna su doy su wóor su am pas-pas ñu koy wax soxna awasaar moom la ko dénk xam ngeen ni itam ba mu tukkee te tubaab yi bind bataaxel wax ne sëriñ bi dafa génn àdduna ñëpp gëlëm ñëpp jaaxle ñëpp tiit euh, as soxna moo leen ca génne muy soxna Faati Isa Jóob moo leen wax ne moo ma waxoon ne ma maa lay dugal ci bàmmeel te maa ngi nii ne jonn kon li ñu wax amut ndax wa waxam ni alquran laa laa ko jàppe kon gis ngeen ni jigéen yàgg nañoo taxaw taxawaay yoo xam ne pas-pas rek moo ko lal euh, euh, njub rek moo ko lal xam ngeen ne nag démb rek ñi ngi doon fàttaliku kenn ca ñooñee muy soxna jaaratullaahi maryam Bousso soxna jaaratullaahi li ci téere minan wax bu Cheikh Mouhamadul Bachir doy na li wax ne kaanatil walidatu saalihatan nee na wajuru ku baax kii de ku yiw la woon afifatan ku bari lu muy jomb dayinatan ku bari diine kasirata salaati wa sawmi wa sadaqati ku bari lu muy julli ku bari lu muy woor ku bari lu muy sàkk sarax mustaslimatan li rabbiha ku joxoon boppam boroomam la qaa'imatan bi waajibaati diiniha war-wari diineem da ca doon taxaw temm baynaha wa bayna rabbiha digganteem ak boroomam wa fi ma baynaha wa bayna sheykhil imaami qariniha ak digganteem ak sëriñam muy sëriñ Mor Anta la sëriñ Mor Anta Sali wa kaanat turabbi awlaadaha ala al muruati wa diin daana yar njabootam ay doomam ci ñuy jomb wut ba am lu ñuy jomb am diine wa tahaarati ak ñuy laab wa kasiran ma taxki alayhim xikaayati saalihin lu bare bari da daan nettali ak njabootam euh, waxtaani gaa yu baax ya nga xam ni ñoo jiitu ngir bëgg ñu xam ñu baax ñi nañu doon doxee ak nañu meloon bañ man caa roy xam ngeen ne la mu waxoon sëriñ bi ne ko ñu baax ñi dañuy taxaw guddi ba mu duggee noppam rek su guddee muy taxaw te booba demagul daara xamul sax luy naafi la day taxaw rek ndax nee na ko nit ku baax day taxaw guddi soxna si nag sunu borom defal na ko teraanga joo xam ne ñëpp ko sopp waaye nag ndax sopp gi ñu ko sopp tax na ba jigéen ñi di ko roy jigéen ñi war nañu gën a laxasaayu ci di ko roy ndaxte nataalam bi nga xam ne moom la ñu dessiné rek tasaare ku ci àdduna bu ñu koy xool day mel ni mag mu dem ba si te xam ngeen ne ay atam bariwul fanweer ak ñett rek la am loolu day wane ne ku yiw la woon ku doon mm, suturaal boppam la woon ku joxoon worma euh, diine diine la woon kon nag ñi ko sopp ba tax ñu wuti daayira fu ne di dajaloo di dajale seeni ñaq di fa dem di fa sonn nañu xam ne la ëpp solo loola la muy baax baax baax jéema nag sol seen dàll roy ko ci am diine roy ko ci fonk julli fonk koor fonk sarxe roy ko ci jox seen bopp yàlla roy ko ci euh, sàmmonteeg war-wari diine roy ko ci nag topp seeni borom kër loola bokk na ci liñ ko war a roy roy ko ci nag yar seenu njaboot ndax xam ngeen ba muy wuy ji boroomam Euh, njabootam seeni at taxul mu bari booba sëriñ bi fukki at ak tuuti la am waaye ba muy batale ak njabootam mënoon na ne am na néegum ndey mënoon na ne am na ay bokk am na aw xeet waaye dafa seet kenn ci ay mbokki daaraam koo xam ne da koo doy muy soxna Faati Isa mu dénk ko ak njabootam loolu ndax jigéen ñi jamono ji ku ciy tukki rek ñaare da ngay fab sa njaboot yóbbu feneen dénkaane sa njaboot ndax kenn du wóolu mbokkum daaraam te nit ki bu tënkoo ci diine di dox doxinu diine euh, du am lu muy tiit du am lu muy ragal yàlla rek lay tiital yàlla rek lay ragalal waaye ba mu dénkaane ak njabootam euh, sëñ Mouhamed Lamine Diop Dagana nee na soxna sa dafa saytu njaboot gi saytu goo xam ne euh, mu ne wahiyal mutawalliyatu li am amri cheikh baada wafaati ummihi fa kaadat tunsihi iyaha law am kan nee na waajur wu jigéen day kuñ mën mënta fàtte waaye bu doon ku ñuy fàtte kon nee na kon sëriñ bi dana fàtte soxna jaara ndax saytu guñ ko saytu ginnaaw bi mu làqoo kon nag soxna yi bëgg ngeen maam jaara lool yéen a ngi koy sonna lool di wut ay daayira di dajale seeni i ñaq di joxe di fa teew di togg di yàq di joxe waaye loolu lépp lu baax la waaye nag roy roy ko ci doxinam mu digganteem ak boroomam roy ko ci doxinam mu digganteem ak sëriñam roy ko ci doxinam digganteem ak mbokki daaram ak i dëkkandoom loola mooy li nga xam ne loolu la ñu war a jiital luñ cay teg door ko caa tek kon yàlla nañu yàgg teewee bis bi euh, yàlla na ko sëriñ bi yàgg woote mbooloo mi yàggu ko yàgg ko yàggu ko wuy ji te buñ ko wuyjee nag nañu sàmmonteeg la nga xam ne moom la dëkk ba laaj waaye am na ñoo xam dañ fay dem di xalangu naan fii dañ fi dañ fay war a xalangu am ñoo xam dañuy dem di dagg ay sagar di takk naan fii dañ fi takk takk ay sagar muy yëfi yëfi yëfi caaxaan yoo xam ne diine xamu ko ak taalibe xamu ko kon yooyu yëpp yi nga xam ne da cee rax te bokku ci nañ koy leeral ña fay dem bañ gën koo xam di gën a sàmmonteeg barab ba di gën a sàmmonteeg waroom ay soxna sax kon ñu ñëw ci xutba bi nga xam ne tey moom la imaam war a euh, wax léegi ci seen kanam nee na mi ngi sant yàlla mi nga xam ne moo bind weer yëpp bind bis yëpp sàkk ca nag ay bis ak i weer yoo xam ne da leen a taamu julli ci yonent bi sa alayhi wa sallam nee nit ñi da ngeen xam ne yàlla desee lu leen dara xéewal na leen xéewal yoo xam ne mat na sëkk wutal leen ay bis ak waxtu yoo xam ne lu ci waay defoon cib safaan boo góorgóorloo tuuti sunu borom jéggal la ko def ko aw yiw wut ay weer yoo xam ne da ko def muy weeri ngëneel ngir kuy def lu baax man góor góorgóorlu góorgóorlu ci farata ak sunna bokk na ca weeri ngëneel yooyee weer wii ñu nekk muy weeru rajab nga xam ne suñu borom da cee bari ay yiw yu muy jox jaam ñi da ci ubbi buntu yërmande ngir jaam ñi lu ci waaye defoon cib safaan boo góorgóorloo mu jéggal la ko te loo ci def ci lu baax boo góor góorloo mu fulal la ko kon nag nee na euh, ku gàttañ lu woon na nga xam ne weer wii kenn waru ci gàttañ lu ndax nit mën na ci góorgóorlu ba am ngërëmul yàlla ak njéggalul yàlla nee na yonent bi nee na ku jéggalu yàlla tuubal ko ci weeru rajab juróom-ñaar fukki yoon suba ak juróom-ñaar fukki yoon ngoon su faatoo diggante rajab bii ak rajab bay ñëw nee na suñu borom da koy bindal yoolu koo xam dafa daanu ci xareb lislaam te du tàbbi safara nee na kon yàlla na nu yàlla boole ci jaamam ñi nga xam dañ koy lebal rafet ndax yàlla ko ko lebal lu rafet bu la fayee da nga xam yàlla rek moo mën a fay bor xutbam ñaareel bi mu ne mi ngi sant yàlla mi nga xam ne moo tànn ci jaamam ñi ab yonent bu tedd tudde ko muhammad alayhi salaatu wasalaam jox ko raaya boobe ñuy wax liwaawul hamdi jox ko dara daraja jooju ñuy wax almaqaamul mahmud moo yal na yàlla dooli ko xéewal ak leer ak saxaabam ya mu ne ginnaaw loolu yéen jaami yàlla yi na ngeen doollee ragal yàlla te na ngeen téye ci na ngeen jàpp ci li nga xam ne moom la yonent bi wax moom la indi na ngeen seet lim digle ngeen di ko jëf seet lim tere ngeen di ko bàyyi ndax ku jëf lu rafet yàlla su ëllëgee mu wan la ko su boobaa sab xol dana sedd yàlla ni mu euh, leen joxe ay teraanga ak xéewal na ngeen delloo njukkal suñu borom na ngeen xam ne bis yi gaaw na lool dee tam euh, day daw xil topp ci ginnaaw doomu aadama yi te loo gaaw gaaw moo la gën a gaaw te faaw mu dab la gannaaw bis yi dafa gaaw dee dafa gaaw te nun saa sum xëyee ay mébét ak yaakaar rek moom la ñuy xëyee moom la ñuy gontoo kon nañu xam ne li nu weesu moo ëpp li ci kanam kon nag ni ñu gaaw balaa dee bett kenn gaaw def lan mooy gaaw di jëf-jëf ju yiw di bari jaamu yàlla di bari julli ci siiru naa muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na yàlla na nu yàlla defal tawfiq boole ñu ci jaamam ña nga xam ne Euh, um, um, dañuy def lu mu gërëm rek la ñuy gër moom la ñuy def yal na ñu yàlla boole ci jaamam ya nga xam ne la yàlla tànn ak la yàlla namm loolu la ñuy tànn loolu la ñuy namm duñ am seenug tànn duñ am leneen lu ñuy namm yal na ñu yàlla boole ci jaamam yi nga xam ne seen dund gépp dañ ko jeexal ci topp yàlla yal na ñu yàlla boole ci jaamam ya nga xam ne ba ñu ko toppee euh, la nga xam ne moo ci juddoo di di ci topp yàlla ga muy ngërëmam ak yiw nee na yàlla nañu ko yàlla boole defal nee na nañu settantal li yàlla wax ci alquran alquranam ji nee na man amila saalihan min dakarin aw unsa wa huwa muminun fala nuxyiyannahu xayaatan tayiba wala najziyannahum ajrahum bi axsani ma kaanu yaamaluun nee na ku def lu baax ngay góor ngay jigéen te waxoon nañ ko sànq sàkk lu baax amul góor amul jigéen kon fu góor taxaw di fa góor góorlu di laxasaayu di sàkk lu baax jigéen war na faa taxaw di sàkk lu baax nee na na kon ku sàkk lu baax ngay góor ngay jigéen te pas-pas lal ko lu baax la ngay def na ko pas-pas lal ndax loo mën a def ci lu baax te pas-pas jiituwul amul njariñ innal fawaida alal aqaidi ku ñëw fësoo wëñ nga mboros ma jagadi kon pas-pas moo koy lal yàlla nee na ku def loola da nga am jàmmi àdduna da nga am jàmmi àllaaxira te su ëllëgee yàlla dana la fay pay koo xam ne da nga xam ne yàlla moo rek moo rafetuk fay mu ne yàlla na nu yàlla jéggal te jéggal leen te jéggal mboolem jullit ah, kon ñu ngi ñaanal sunu kilifa gu mag gi nga xam ne moo ne ci kanam mbooloo mi yàlla na ko yàlla doole sàmm yàlla na ko yàlla doole wér yàlla na ko yàlla doole ay ndam lislaam rek moo ko moo moo ko ñor lu baax rek moo ko ñor kon képp koo xam ne da nekk ci ginnaawam na ko ñaanal mu gën fee yàgg ndax su fi yàggee njariñul diine rek lay doon kon lépp lu mu song yàlla na ko daan lépp lu mu sumb yàlla na ko yeggale te nu ànd koog moom wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.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 على الفلاح والشهور والأيام وعرفنا فيها عوارف التفضيل والإكرام والإنعام وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين عرفوا بالإحسان والصلة صلاة وسلاما يتصلان ما دامت الليالي الفاضل الفاضلة متصلة أما بعد فيا أيها الناس إن الله سبحانه أسبغ عليكم نعمه منة ولطفا وبدل في بعض الأوقات السيئات بالحسنات وضاعفها ضعفا وخص بعض الشهور بمزايا الفضل ليزيد العامل فيها من الفرض والنفل من ذلكم شهركم هذا الذي عظم عند الله ثوابه وفتحت فيه للرحمات أبوابه فالوزر فيه وإن جل بفضل الله موضوع والعمل الصالح وإن قل برحمته مرفوع والعفو فيه مبذول للمقصرين والرضا مقطوع به للمستغفرين قال عليه الصلاة والسلام من استغفر الله وسأله التوبة في شهر رجب سبعين مرة بالعشي وسبعين مرة بالغداة إن مات ما بينه وبين رجب المستقبل مات شهيدا مرضيا عنه لا تمسه النار جعلني الله وإياكم من الذين أقرضوا الله قرضا حسنا وأخبتوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الحمد لله الذي اختار من خلقه نبيا كريما سماه محمدا وأولاه بلواء الحمد مقاما عظيما صلى الله وسلم عليه وعلى آله الذين سادوا بقربه واصحابه الذين سعدوا باتباعه وحبه اما بعد فيا أيها فيا عباد الله اتقوا الله واقبلوا قول نبيكم وقابلوا بوجه القبول ما به من الجميل waamalu fasayara allahu amalakum wa ahsinu kama ahsana allahu ilaykum واعلموا أن الأيام حهيهة السياق وأن الموت سريع اللحاق ونحن بين آمال نؤملها wa ajalin qarba ajaluha fa baadiru waffaqakum allahu qabla bagti al ajal bil ishtigaali bi saalihi al amal wa kahrati salaati wa salaami ala sayyidina muhammad خاتم الأنبياء والإرسال وفقنا الله وإياكم لما وفق له الصالحين من عباده وجعلني وإياكم ممن ترك اختياره ومراده لاختياره ومراده وقطع أيام عمره في طاعة الله فاجتمع بذلك همرة, همرة بره ورضاه وتدبروا في ذلك قول مولانا في محكم كتابه المكنون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين آمين allahu akbar allahu akbar ashadu an laa ilaha illa allah ashadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salaati hayya ala falaahi qad qaamati salaatu allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا يسبح لله ما في السماوات والأرض والملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم kontaan la ربنا شرور من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها لا تسمع فيها asalaamaaleykum.